ñëw ci xibaar yi ci tënk ci kàllamay coach ak euh, Chérif euh, Dia Chérif ñu doole kook ONAS Cheikh Dieng dana wuy jiwaat tey ji euh, section de recherche ñoom yor enquête bi jëm ca coowal ONAS li rawatina kon réeréw ba amoon digganteem ak kë gilifoon ci wàllu ministère bi ñu dénk wàllu ndox ak assainissement di Cheikh Tidiane Dièye moom ayu bés bee ñu génn sax moom mii di Cheikh Dieng jotoon noonu ko déglu kon tey dana ci gendarme yi ngir ñu daal di koy déglu Amadou Ba mi ngi seetal deram ci tuuma yi ko Ousmane Sonko tuumaal jëm ci kon ay falsification jëm ci budget bu Sénégal ak chiffres yi moom wedd na lu ni mel alal ji ne da ko am fonctionnaire milliardaire it moom li mu am nee na dafa lew te sàkku na ci ñoom Sonko ñu publier moom li mu am waaye ñoom yi Sonko lan am bu ko defee sénégalais yi mën cee gindee ko dafa pare rek Sonko daal di bind ci page Facebook am woo ko ci ab débat public contradictoire ngir kon ñu waxtaanee thèmes yu bëri mbiru suuf si wàllu foncier fiscalité mbiram hydrocarbures mines yi ba ci sax masse salariale salariale bu Sénégal ak vision Sénégal 2050 bi lancé euh, bërki démb Bougane gee Dany moom démb la fanaan gu dem gu njëkk ca kaso bu Tambacounda ñu war ko attee ñaar fukki fanweeri fan ci weeru octobre bi bi ci flagrant délit ndax ñi ngi koy toppee rek refus d'obtempérer outrage à de l'ordre ak rébellion loolu la ko àttekat bi di toppee de Déthié Fall démb nee na gisee na ak Ousmane Sonko premier ministre ginnaaw kon ba dogeeb diir gisewun loolu ma nga xewee ca euh, Petit pale lu toll ci ñaari waxtu kon nee na kim jàppee euh, doomu ndeyam kon gisee na daal di waxtaan loolu dana ci ñëwaat fleuve Sénégal it ma ngay rek gën a rem ba rawatina kon ci bët gànnaaru Sénégal la xew ca Ndar gis ngeen ko ak quartier xaar yàlla huit heures yi dana dem fële ca Matam ndax foofu te ndox ma a ngay jege si soxna jaay na ba kër yi. jaajëfal euh, Chérif Dia ñu ñëw euh, ci xibaaru bi ci réew Chérif mën na la ñu nemmeeku itamit ca Mali. mu def fa jëye ju bëri nag lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci mbënn mi bu sukkandikoo ci comité gestion interministériel bi ñu dénk kon lépp lu jëm ci crise ak euh, musiba yu mel ni jàpp nañ ne sax boobee mbënd lor na lu toll ci euh, ñetti téeméeri ju nekk juróom fukki doomu aadama yoo xamante daal mën na leen jàppee comme ay sinistre Paul Biya dellusiwaat na ca Cameroun moom mi nga xamante ni am na ay xibaar yu wéradi yu jàppoon ni sax kon santeem di wérgee yaram daal xaw naa sooxee waaw euh, loolu kon weddi nañ ko ndax démb ba mu ne cëpp ci aéroport bu Yaoundé ci CRTV muy télévision nationale ba ci lañu ko wane mu ànd ak soxnaam euh, ñuy kon euh, dox ba daal di dugg seen ab oto kilifa yu bëri nag daan na leen fay teertu fële ca Tunisie président ba di Kais Saïed daal di nay waat prêté na serment ginnaaw ban ko falaatee moom nag ci élection yi premier tour lañ ko daal di fal mu am daanaka lu ëpp 90 pour cent muy chiffre yoo xamante ni ku jógee doon nañ wéy di ko contesté Afrique ak fitna Mozambique. opposition ba tamit ñu ngi leen di teg lu métti jëm kon ci ay élections yoo xamante ñu ko fa doon waajal rawatina ka jiite boobee opposition di Vanasio mon lan euh, moom nag euh, jàpp na ni sax gis nga ko grève générale bi mu woote moo tax kilifa yi ne du ca dal ak ay fraude fiscale yoo xamante ni kon ay fraude électorale yu mu jàpp ni ma ngi fay am ñu wax it ca fitna ga am ca proche orient soxna ba rawatina Liban Israël ma ngay woy di leen bombardé jàpp na ni sax lu toll ci junni ak ñeent téeméer juróom-ñaar fukki doomu adama ñàkk nañ seen bakkan bu dee ca Gaza it euh, ma ngay gën a tar ndax bañ ko xaymaa léegi lu ëpp ñeent téeméer junni ak ñaar juróom-benn téeméer ak ñetti doomu aadama di doomi Palestine ñàkk nañ fi seen bakkan secrétaire d'État bu Amérique di Anthony Blinken ñu ngi koy xaar ci région ba ngir cessez-le-feu maanaam gars yi weer yi amuñ ca yaakaar nag. Euh, jaajëfal la bu baax a baax euh, pour euh, kon information yi ñu indil ci bi ci réew à 7h40 danañu dem ca RFM fekk fa Babacar Fall ak.